asalaamaaleykum mbokk yi ñu sant yàlla moom mi ñu may xel ak xol sant ko si mboolem xéewal yi ñu defal sant ko si lim ñu may ñu am jotaay bii di xel ak xol xel ak xol ndax ñaar yooyu ñooy doomu aadama doomu aadama xel la waaye doomu aadama yit xol la doomu aadama xel la ndax xelam mooy jumtukaay boobu nga xam ni moom defaru ko de yàlla moo ko jagleel ngir mu siy niitu ngir muy saafara ay jafe-jafeem ngir muy fent ngir muy indi yoo xam ne dafay tax ba dundam gën a neex gën a tey xoolal tey dundu doomu aadama nu mu gënee yomb si dem ak ñëw ndax oto am na avion am na auto otoraay am na gaal am na xoolal dund doomu aadama nu mu gënee yomb si dëkkuwaay ndax suñu dëkkuwaay suñu xel defar na ko ba nga faa def ventilateur def fa climatiseur euh, def ay chauffage loo xam ne dafay tàngal ndox dafay seral ndox euh, tey xoolal xelu doomu aadama nu mu euh, mënee indi yu bees yu mel ni tey téléphone yi ñuy jëfandikoo nga xam ne fii ngay nee léegi woo ne fële ca tugal nga mun koo jot nga mun a jokkoo ak moom yooyu yëpp xel moo ko defar xelu doomu aadama dafa foor xelu doomu adama dafa am pexe dafa am man-man su ko doomu aadama bi bësee sottee xellee su ko gësamee su ko bësee su ko nàccalee xéewal yooyu yëpp daf siy judd doomu aadama yi fi ñuy rawantee rek léeg moom mooy jëfandikoo seeni xel ki lay gën a jëfandikoo xel léeg-léeg moom moo lay ëpp doole moom moo lay gën a jëm kanam doomu aadama yi bari nañ ñoo xam ne ñu ngi toog di jàmbat man awma lii man ñàkk naa lii te li ko waral rek moom mooy bañ a jëfandikoo seeni xel am na kuy mere ku ko deful dara sama yaay moo ma defalul sama pap moo ma defalul sama mag ba nekk France sama mag ba nekk amerique sama mag ba nekk itali ngay mere la deful dara ñooñu ñu ngi lijjanti seen bopp yow nag yaa war a lijjanti sa bopp teg ko ci sa xel réew tugal yi tey raayuñ dara dul foofu dañ faa fonk xel dañ fay jëfandikoo xel doomu aadama xel la de waaye xol la xolam moom mooy mooy sell mooy baax mooy yaatu mooy yëwan moom mooy euh, am ñeewant mooy am mbëggeel ba doomu aadama boobu dundam daal di neex doomu aadama bu dundam na naxaree rek léeg-léeg dina ko waral xol bu soxor xol bu iñaan xol bu siis xol bu xat loolu dafay jural doomu aadama yi ay jàngoro sax ba pare dundam daal di naqari doomu aadama dafay moytu am xel bu lëndëm ak xool bu ñuul xel mu lënt xool bu lëndëm yooyu dafay sànq doomu aadama am na luñ ñu bëgg xool si wàllum xel balaa ñuy dikkaat si jotaay bi di xel ak xol. Formé la noix de coco, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire d'original. Il m'a fallu environ neuf mois, c'est-à-dire fin de l'année 2013, pour que enfin me vienne l'idée qui va me permettre d'obtenir ce que j'appelle les chips de noix de coco. Le problème, c'était qu'il fallait encore trouver le matériel sur le marché qui devait me permettre de faire ces chiffres de notre projet, écumer tous les marchés du pays, à Yaoundé, à Douala, dans les principales villes, à la recherche d'une lame, d'une machine, quelque chose qui existait déjà, qui devait me permettre de mincer la noix de coco comme je le souhaite. Je n'ai pas trouvé. C'est un soir, par une certaine inspiration, que je me suis dit, mais je peux la faire fabriquer, cette lame. Le lendemain, je suis allé rencontrer le forgeron. Nous avons testé ensemble. J'avais mon morceau de noix de coco frais dans la poche. Nous avons testé ensemble. Il a soudé. J'ai essayé de râper. J'ai vu que ça donnait ce que je voulais. J'étais très fier. J'ai sauté. Je suis rentré à la maison. J'ai fait la cuisson puisque j'avais déjà étudié le processus de cuisson avant. J'ai fait la cuisson et le résultat était extraordinaire. Mais... gis nañ euh, doomu aadama xelam ni ngi koy nàccalee rek mu jur ay euh, mu jur ay xéewal euh, tey suñu jotaay xel ak xol ñu ngi si ànd ak Jam Sow Jam Sow moom euh, jàngalekat la wàllum mathématique wàllum SVT waaye it bindkat la Jam ñu lay nuyu la ziar. Tunkara maa ngi lay nuyu. Jam Sow yow jàngalekat nga suñuy wax xel ak xol yan xalaat moo lay dikkal. waaw suñu waxee xol ak xel dañuy delluwaat ci yàlla. yàlla dafa njëkk a wax ne moom mu ngi wax ak ñi nga xam ne am nañu xel mu ngi nattu jaamu encore ci volonté volonté fu muy amee ci xol lay ame donc yàlla bu waxee ak nit xelam moo tax ak xolam moo tax xel bi dina am ay faiblesse mais xel bi mun na am ay force euh, te doomu aadama li wéete mooy du moom moo sàkk xelam mhm. du moom moo amal xel mi mhm. xel mi yàlla moo ko jox waaw xel bi xel bi dañ koy jàngat loolu moo tax yàlla mu ne dem leen a sakku xam-xam fekkee bu dee ngay dem ba ba Chine. est-ce que euh, léegi euh, am na lu ñu bëgg xool tamit si wàllum euh, xool. Mhm. balaa ñuy dikkaat si jotaay bi ak Jamson mhm. Il est certain que la vie peut changer d'un instant à l'autre. Tel est le cas de Maria, une jeune serveuse au Texas aux États-Unis, dont la vie se transforma après s'être occupée d'un vagabond qui entra dans le restaurant où elle travaillait. Et quand vous découvrirez qui était cet homme-là, je crois que vous allez halluciner comme moi. Sentant mauvais et ayant beaucoup de difficultés à marcher, cet homme âgé entra lentement au restaurant à l'aide de Tous les regards furent immédiatement rivés sur lui et les murmures de mépris ne se firent pas attendre. Cependant, lorsque Maria s'approcha pour prendre sa commande, les choses changèrent complètement. Avec un sourire, la fille prit sa commande comme s'il se fût agi de n'importe quel client. Et bien que les autres aient commencé à se plaindre de la présence et de l'odeur du vagabond, Maria lui dit ⁇ Je m'appelle Maria. Si vous avez besoin de quelque chose, si aimable que le immédiatement. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le traitait comme un être humain et non comme un vagabond. Le gérant du restaurant autorisa que le vagabond resta après avoir prévenu Maria que si l'homme n'avait pas d'argent pour payer, il le lui déduirait, ce qui n'avait pas d'importance pour la jeune fille. Elle répondit immédiatement qu'un repas chaud, ça ne se refusait à personne. Le vagabond commanda des pancakes et des œufs au bacon servis avec Lorsqu'il finit de manger, Maria s'approcha de la table et lui dit de ne pas s'inquiéter pour l'addition et qu'elle l'invitait. Les yeux pleins de larmes, l'homme la remercia avec un hochement de tête et finit sa boisson. Or, après qu'il se fut retiré, Maria resta complètement bouche En effet, en ramassant le plateau, elle trouva un billet de 100 dollars, une carte de visite et une note écrite sur une serviette qui disait Chère Maria, je vous respecte beaucoup et vous vous respectez aussi. C'est évident de par la manière dont vous traitez les autres. Vous avez trouvé le secret du bonheur. Vos bons gestes vous mèneront à être parmi ceux qui le connaissent. Recevez toute mon admiration. Merci pour le petit déjeuner, mais surtout pour votre sourire et pour votre amabilité. La carte de visite n'était autre que celle du propriétaire du restaurant qui s'était déguisé en vagabond pour reçoit leur apparence. Une semaine plus tard, Maria fut promue au poste de gérante du restaurant en remplacement de son ancien patron. Et eh oui, un petit geste de bonté peut sans conteste apporter beaucoup de joie dans notre vie. Ne jugez pas et ne discriminez pas, et faites de votre mieux pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Euh, xool bu yaatu mën na yóbbu nit euh, fu yow gis nañ lii tey yan xalaat la lay dikkal. Euh, lii nii yedd la nit dañ koy yedd parce que mun na jëfee keneen ku lu bon mu delluwaat ci kawam. Mhm. mun na jëfee lu baax fekk loolu mooy moo koy aar. nit moom loo def lu lu baax. waaw mënees nga koo gisaat loo def lu bon mënees nga koo gisaat. voilà olof dem ba wax ne lu lu waay di rendi ci loxam lay nàcc. donc loo mun a def rek sa bopp nga ko def. lu waaye di reen di si loxo na si loxoom lay naaj loolu nu ñu koy waxee si pël. kala ko tongu desi artata koy koy di joomu. tey euh, sama mbokku euh, pël yëpp ñoom Codé Sow euh, ñoo ñëpp di leen ziar yow jàngalekat nga. Mhm. mathématique ak SVT. waaw ban yeen classe ngay jàngale. bon maa ngi jàngale niveau yëpp ah te yàgg naa ci. ñaataat def naa ci 11 ans. fukki at ak benn yow lan nga jàng bay jàngale. bon jàng naa mathématique parce que bac S2 laa am euh, dama def euh, sixième ba terminal ma am sama bak bi ma amee bac ma dem université def science économique ma def science économique ba licence ma dem jàngale ji ma ñëwaat loolu moom ma indiwaat parce que Fuuta laa nekkoon di jàngale jàngale foofu huit ans ma ne il faut ma àggale li ma commencé ma ñëwaat nekk ngaay bon science de ko nga jàng. voilà waaye mathématique ngay jàngale. waaw. SVT jàngoo ko. jàng naa SVT. boo ko jàng naa ko lycée. jàngoo ko université. non da ngay def formation balaa ngay jàngale da ngay def formation. ban formation nga def FASTEF. FASTEF nga def léegi yow Diam euh, soow mhm. lan nga lan lan moo la fi indi lan nga bëgg leeral. voilà man euh, euh, Tunkara li ma fi indi rek lu ma soxal léegi li nga wax ne xol ak xel li nga xam ne maa ngi koy gis di law sama diwaan parce que fuutanke la foofu laa juddoo foofu laa màggee ba nii Fuuta laa dundee Fuuta laa dëkk mais dama gis ne foofu euh, situation bi mu ngi gën di jafe ci nit ñi nekk foofu. parce que ñoom. Mm. waaw ñoom ñaari activité lañu ñu amoon mbay ak càmm. bi ñu bi ñu amee euh, ñaari activité yooyu dafa fekk Fuuta muy taw di am ndox am am àll mais léegi dañoo gis ne Fuuta tawatul presque. nit ñi sonn nañu lool sonn nañu ba foofu la mun a yem ma wax la rek ci at yu mujj yi ñun bi ñu nekkee ay xale dañu doon gis mu taw àll bi yëpp am ndox ñu bay ñu am ndex bi bu demee ba ba delluwaat ñu bay encore ñu am dugub donc ñu ngi bay jéeri ak waalo di am lu bari mooy suñu càmm bi encore mu am production bu bari ñu am nag am bëy am xar di ci dund. léegi amatu leen yooyu. léegi loolu dafa disparaître. amatu leen nag. amatul. ah ni ñu doon amee ni ñu doon amee. amatul yow am ngay nag yow. man amoon nag. musoo musoo sàmm. mus naa sàmm. sàmm say nag. ñëpp a ñëpp ñëpp a euh, disparaître te dañoo dee. disparaître dem dañoo dee dañoo dee jaayoo leen. man moomu ma ko sama pap moo te moom du jaay moom dem na ba am cent amoon na cent tête de vache. waaw di wàññi téeméer yëpp dee. non chaque année day wàññeeku parce que exploitation moo baaxul loolu moo ma indi fii. ni ñu koy traité moo baaxul. waaw a dee. te jaayu ci benn. te moom du jaay de. waaye lu leen di rey xanaa daa am feebar bu leen di rey wala. du feebar dañuy xiif. xiif ba instant bii nii ah bu amoon 5000 mu yor nag am 5000 war a def ci cin bi du ko def nag bii lay dundal. tubaab waaw. nag yi ñoo ko gënal nit ñi. waa nootu. ñoo gënal ay doomam culture culture am. waaw loolu la nag yi ñoo ko gënal ay doomam. du gënal. juste xam nga affaire bi du gënal. mais amour bi fu mu féete la peut moom mu ngi foog ne. waaw amour bi mi ngi féete si nag yi loolu laa wax. Euh, da du ma du ma d'accord ci ci ci gënal. yow nga am sa doom mu xiif nga am sa nag mu xiif nga jël nga jël li li doom ji war a lekk jox ko nag wi bu boobaa kay nag wi la gën a. voilà fekkee noonu la ñuy jugé itam moom mu ngi benn ci cent exemple c'est-à-dire téeméeri nit ñu ngi nuru ak moom foofu wala lu ëpp loolu. pël yi daal noonu la ñuy doxal très bien. pël léeg-léeg moom nagam moo koy gënal doomam. Euh, loolu man du ma seen sentiment. parce que sa man. ñu nekk ñu si jugement. constat la nekk constat mooy. ci lima ma gis non pour ñoom pour ñoom peut nit ki mun na fexe ba dund xam nga. c'est-à-dire du bàyyi doom yi carrément ñuy dee foofu muy xool loolu encore du ko def. mais booy def sa doom de yooyu. du euh, am Tounkara ma wax la ma wax la li nga xam ne man maa ngi koy gis semaine passée. ça fait à peine deux semaines nit ñi xamu fan la ñuy def cent kilomètres soixante dix kilomètres di jënd ay ñax pour indi ko suñu dëkk. pour jox jur ñu lekk waaw ma wax rek li nga xam ne benn ta ñu ngi koy jëndee cinquante mille soixante mille. Mhm. seen doom yi du ñu du benn ci seen doom ñu jox leen cinquante mille pour ñu def benn liggéey wala ñu. ñu solu walla ñu mais nag yi mun nga leen yóbbu ñu màngaani dem ba ay euh, dégg nga euh, si àll yooyu lekk contradiction bi boobu nag moo am parce que ñoom dañoo des ci réew ci ci ci dëkk bi ci seen bâtiment yi dëkk foofu bëgg am vache man sama papa bi ma amoon ay vache de doon da doon màngaani da doon màngaani di ñëwaat li ko déséquilibré mooy suñu njàng il fallait mu rester. mu nekk sédentaire. voilà bàyyi cosaanu aada. cosaanu pël parce que cosaanu pël moom mooy transhumance. transhumance voilà. ñu bàyyi transhumance ma wax la léegi pël yi dañoo bàyyi politicien yi transhumance bi pël yi léegi sédentaire lañ bàyyi politicien yi léegi léegi politiciens yi ak ak euh, nu mu tuddati politiciens yi ci ci ñii la ñu jël c'est à exemple pël yi la jël fii ñax bii tooy rek foofu la ñuy dem politiciens yi itam fi nga xam ne fii tooy na rek ku bëgg lu tooy rek ñu jox la mille mille francs après foofu la ñuy ñëw. boo léegi nga ni Fouta foofu dund bi fi mu toll nii. dafa métti euh, Fouta yëpp la euh, diggante Bakel euh, dégg Bakel diggante Matam. ba Agnam Podor voilà. dégg nga ay ñoom Semme ñoom Ndendori Agnam Siwol ñoo ñëpp foofu dafa métti. dafa métti. lekk ñu naanu dafa métti. am nañ ndox ma wax la rek su ma waxee dafa métti la pour la plupart dafa métti am na ñi nga xam ne am nañu ay revenu buy jógee kaw. c'est-à-dire ay Europe ay États-Unis di dund. non parce que loolu mooy wax ji boo nekkee tey boo dëkkee Fuuta. Mhm. sax fa mhm. maanaam yan activité moo fa am yu la mën a dundal su fekkee euh, bayoo euh, noor. Mhm. su fekkee amoo commerce. su fekkee amoo jur. te jur gi ñoom duñ ko lekk. voilà mais kon waa fu Futank lan la ñuy dundee. loolu loolu moo tax instant bi ñu nekk ci ay jafe-jafe parce que ñoom ñu ngi dundee ma wax la rek xam nga yow troc suñu la waxee troc. mooy mooy wecce wecce dama lay jox nag nga jox ma dugub. su ma la waxee am na ci Sénégal est-ce que di nga ko gëm. Ah, am na kay. waaw am na ah, foofu waaw am na foofu. léegi pour euh, dund quoi pour cest pour lekk. pour naan mhm. pour lekk. troc am na foofu nga nga yenu sa siwoo ceeb nga dem ci boutique bi mu jox la li nga nduggee après mu jël ceeb bi. léegi est-ce que am na ay jàngat yoo leen def yow mii xam nga jàng nga. voilà nga ay licence yaa ngi jàngale. voilà yooyu est-ce que tey def ngeen étude xool. population Fuuta yëpp ñaata lañ ñaata ñoo si nekk en situation de. xiif wala de ñàkk est-ce que def ngeen étude yooyu. voilà étude boobu day commencer ba d'abord fu mu nekk dem naa def naa étude bi parce que temps yi dañoo indi foofu ay li ñuy woowee bon alimentaire boo déggee bon alimentaire mooy ñu lay dimbali pour nga lekk kon xam nga ñooñu sonn na dañoo def ay bon alimentaire. te bons alimentaires yi boo jëlee suñu suñu suñu suñu c'est-à-dire suñu dëkk dafa am ay euh, village quoi suñu village par exemple. sa village mooy mu ngi euh, mu ngi tudd Njuganaabe quoi Njuganaabe dans la commune de Méry moo wax la rek ñu ngi am 371 carrés 371 familles famille bu ne à au moins 5 personnes 371. ci bon yi xam nga ñaatu la ñu am 51 personnes ñoo am. un personnes ñoom am juróom fukki nit ak benn. ñoo am ñoom ñoo am te foofu am na ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn. carré carré carré mooy comme genre de famille waaw waaw waaw. léegi euh, te juróom fukk ak benn rek ñoo est-ce que ñi nekk foofu yëpp naa ba ñëpp dañu soxlay bon. la plupart c'est-à-dire am na ñi nga xam ne soxla nañu saa amuñ te instant bi ñi nga xam ne war nañ jiitaloo comme chef de village yi dañoo am problème. parce que ñoom dañuy wax ne peut-être ñoom ñoo ko jël fekk dafa néew. donc ñoom ñu ngi ci jafe-jafe yooyu. beneen bi mooy seen euh, seen culture agriculture parce que dañoo dañoo transformé wu léegi benn mbay rek la ñuy def mooy ceeb ceeb rek la ñuy bay foofu. ceeb bi itam surface bi du bari. boo jëlee suñu dëkk amul kuy bay foofu hectare donc loolu néew na. ci ci mbay moobu da ngay fay facture c'est-à-dire boo bayee ba pare da ngay fay facture facture bi composante yi la am mu ngi am TVA da ngay fay TVA 18 pour cent da ngay fay amortissement machine bi courant moo koy dawal dañoo indi foofu ay machine da ngay fay amortissement da ngay fay par OMVS da nga koy fay da ngay fay le taux sur le crédit cest à dañuy dem ci banque yi ñu leb leen pour ñu def campagne taux bi mu ngi varier de 15 à pour cent dañuy remb dañuy jël boo jëlee sac tool chaque personne lu muy remboursé par tool mën na 75000 xam nga kooku revenu yam dafa néew. non euh, ñun kay xam nañ ni waa kaw ga ah, moom. seen euh, seen koom dafa néew. Ah. ba gis nga ay bourses familiales lañ leen di jox juróomi junni mm. ñetti weer yu nekk ak mm. euh, ak mm. yooyu. mais léegi est-ce que yéen mm-hmm. yéen ñi nga xam ni ndaw ngeen. Mm-hmm. jàng ngeen. Mm-hmm. yan xalaat yan pexe ngeen foog ne moom ngeen war a def ngir suqali kaw gi. voilà premier premier xalaat cest à xalaat bu njëkk lañu am. mooy yee nit ñi sensibiliser leen d'abord. ci lan. ci d'abord pratique politique yi. ñu xam ne ñoom waruñu basé waruñu xaar ci kenn c'est vrai ñooñu war nañ leen defal ñii di politique war nañ leen defal mais waruñu toog rek di xaar ci ñooñu. ah mais politiciens ñoo leen di dig na mais waruñu loolu moo tax waruñu xaar parce que ñu ne boo gëmee diggu politicien ça n'engage que yow rek la. Ah, la engage politicien bi li mu lay dig tey ak ni muy def. voilà loolu moo tax man dama dama leen di yeete ñu xam ne. et puis dañu am complexe si ñooñu da ngay gis politicien bu nekk Dakar joge fii Dakar ñëw Fuuta bu ñëwee Fuuta yow mii nga xam ne yaa koy votel yow mii nga xam ne yaay fay TVA pour mu fayeeku di dawalee kat-kat nga ñëw boo koy nuyu wala boo ko bëggee gis da ngay wër da ngay wër quoi da ngay wër pour nga gis ko boo ko gisee itam sa soxla bi nga amoon pour wàkku da ngay am complexe di ko wax parce que man gis naa kër politicien yi da ngay gis nit ñëw toog bëgg gis mais day mel na ku ragal. te warul ragal. yow yow kooku noonu. da may ma euh, tuuti yéen fan la euh, kan mooy seen euh, kii responsable politique yi ñan la ko. responsable politique yi bon bëgguma leen nommer sincèrement. non mais ban département ngeen bokk. maa ngi dëkk département de Podor arrondissement de Kaskas hmm. commune de Méri. département de Podor par exemple waa APR yi kan moo fa nekk Abdoulaye Daouda Diallo. waaw mu ngi foofu. ak Aïssata Tall Sall waa PS. waaw mu ngi foofu. waaw ñoo ñëw ak euh, kii waaye si aan ñu ne kudd moom it fa la foofu la nekk. yow yooyu doo jëflante ak ñoom xanaa. non man euh, su ma naree def politique politique bi nga xam ne su ma naree def politique politique bi nga xam ne buy yeete ne bu leen ma topp ngir dama leen jox dara non non. parce la mais futanke yi loolu lañ gëm tamit. mais loolu nag parce que futanke yi bu bu bu élection ñëwee. ñoom ñan la ñuy voté doon tekki ci politique. Hmm. fekk tekki na depuis Mamadou Dia. Fouta de mësta am dara si politique sax. voilà donc ñoom encore toujours parti au pouvoir la ñuy nekk. waaw te foofu du musa tooy. te tey sax président bi Foutanke la. Oh, bon xaw ma. bon ah xamoo. non non xaw ma ndax Foutanke la mais. président Foutanke la bu juddoo Fatick. waaw waaw peut-être mais. peut-être <laughs> non jàmm sow nag yow tam loolu. non xam nga xam nga xam nga résident. fi nga fi nga dëkk ak foo joge par exemple tey suñu waxoon diw euh, français la mais d'origine temps mënuma am mënuma justifier ah, loolu. ah mais si. waaw mais Sénégal la tey tey kii Paul Pogba français la d' origine oh, guinéenne. Oh, voilà xam nañ ko loolu est vrai mais man. Ah. dama dama jàngatul ci ay origine am quoi. dama jàngatul ci ay origine nit ñi dinañu wax. mais man mosu ñoom Baye ñoom Diao Baldé Keita ñi ay sénégalais lañ mais d' origine. <laughs> waaw mais kii mosu mosuma gis euh, euh, arbam ba mu xam ne fan la jógee ci Fouta. président waaw. mais président damay dëgg ñuy wax dëkk ba mu jógee. bu élection jotee moom quatre vingt presque cent pour cent la fay am. même sama commune mos mosoon na am pour cent wala quatre vingt dix huit pour cent. Ah, mu ngo mais dëkkul foofu. am naa moom fuutanke yi seen mbokk fuutanke la ñuy voter. waaw loolu moom ñëpp xam nañu. voilà loolu moo tax euh, Tunkara ma leen di ci responsabilité et situation Fouta génn wu ci population bi population bi moo jëfal boppam loolu c'est-à-dire que. Uh-huh. Euh, nature bi c'est-à-dire àll bi jaww ji am na ci responsabilité population bi ci boppam am na ci responsabilité autorités yi am na ci responsabilité. Euh, fu fuutanke yi euh, ñoom. Mhm. seeni mbokk fuutanke la ñuy votel mhm. jam sow léegi mhm. confirmé na ko. non man. Ah, man confirmé nga ne seen dëkk sax 100 pour cent la. voilà temps temps laay wat noonu la woon. ñoom pouvoir la ñuy parti au pouvoir rek parce que ñii di nekk fii. ah mais bi ñuy voté la xam nga Tunkara lan moo tax loolu. am na ñu nekk fii élection day jot rek ñu ñëw ñu ne sama nijaay nga sama tonton nga sama doomu kii la donc suma ma gañewul yéen ma xaañ jël fibre sentimentale bi alors que ñun fibre patriotique la ñu war a jël. bon euh, xaaral ñu ñu xool benn. Euh, jàngat bu ñu debbo defal benn lépp. Mhm. balaa ñuy dikkaat si euh, mhm. xel ak xool ak jam saw safoo bii di xel ak xol di ñu topp fii ci 2STV yi bés bu ne ànd ceeg suñu xarit Tunkara waaw tey nag maa ngi andi bukki ak lëg ak jaar ñi xamul jaar mooy écureuil bukki dafa daanu ci teen bi rabu àll bu ñëw yër ko dem rabu àll bu ñëw yër ko dem bukki jaaxle torop léegi nag mu ne ah ma de fi ma toll nii lëkk rek laa fi dese yaakaar xam naa ni kooku bu ñëwee naam maa ko ëpp doole waaye ci ay pexeem dina ma génne fii pare gu la wax rek lëkk ñëw sëgg yëre ko mu ko ay lëkk yow laa doon xaar kaay génne ma lëkk ni ko yow man ma génne la man du ma la génne mun ko lu tax mun ko mu la génnee danga may lekk bukki di waat bukki di waat waat bu gën a ay bukki waat ko ni ko du ma la def dara génne ma rek lëkk daal di commencé di xas garab yi xas-xas defar ay buum ba mu baax daal di koy yor ci teen bi ni ko jafandu si mu daal di jafandu mu di ko xëcc di ko xëcc di ko xëcc ba mu génn mu génn rek daal di ni kirtim si kaw lëkk lëkk ni ko yow looy def nii munu ko xanaa lekk la munu ko yow bukki sañ nga maa war munu ko damaa xiif fi mu toll nii moom dama lay lekk léegi nag jaar di leen romb rek lëkk woo ko ni ko jaar kaay dimbali ñu fii mu daal ñëw ni lan la ñu daal di ko koy wax mu ni ko ah man de gawuma la yow lëkk yow la mën ngaa génne bukki ak yow ni nga toll ak ni bukki toll nga génne bukki ci biir teen bi gow ma la mu ni monte maa ko génne bukki ni moo ma génne boo bëggee sax ma defaat mun ko acca defaatal bukki tëb rek di cumbax ci teen bi écureuil daal di ne lëg dawal dem sa yoon foofu la lépp doxee ba xen bu ko njëkk foon tàbbi ajana ñuy dégg ci biir léeb bi ni waat baaxul bu fekkente ne nga waat rek moo des ngir nit ki gëm la gëmal ni yow perdre nga sa crédibilité ndax waat signe de justification la yow li ngay wax boo ko gëmee keneen bu gëmul moom la mais jarul waat maa ngi leen di tàggu ba semaine prochaine incha allah. delloo njukkal euh, soxna Debbo si euh, léeb boobu mu ñu indil diggante bukki ak lëg euh, di fàttali rek les belles histoires de lëg le lièvre mhm. bu Birago Diop ak Léopold Sédar Senghor. Euh, Jam Sow léegi nag mbir mi yow ban message nga ko bugg tënkee. voilà dama indi ay dama gis problème yi indi ay solution comme ni nga waxee ñëw naa jàng management de projet jàng naa loolu xam naa ni ñu koy defee parce que ñi nekk kaaw ñi nekk extérieur daawuñu woon investir parce que amuñu woon confiance wala suñu joxee benn ndaw mu yàqo mu yàqal leen. lan la ñu war a def dañoo war a dañoo war a sensibiliser jeunes yi sensibiliser ñi nga xam ne ñu ngi extérieur ci mun a investir et ban côté la ñuy investir parce que investissement doo ñëw rek comme ni ñuy defee nga ñëw rek ubbi boutique parce que ñun dañoo jàng ci projet balaa ngaa def benn action danga nga war a dab euh, étude du marché nga xam fooy dugal sa xaalis nga xam ne fii nii war naa fi dugal su ma dugalee fii dina dina law ku nekk am ci njëriñ beneen bi mooy da damaa bëgg a def ay séance de de formation de développement personnel nit ñi gën a am confiance ci seen bopp. fuutaange waaw bon bu mu law saa baax na mais d'abord foofu laay commencer. fuutaange yi gën a yeewu daal. non ñoom yeewu nañu sax parce que. Ah, yeewu nañ ba pare nga ni ñu ngi leen di nax. non du nax. Ah, du nax mun naa wax soxor la. parce que ñi ñi leen di soxoree foofu la ñu jógee. mais kan moo ah? ñi leen war a defal foofu la ñu jógee. ñan ñu leen war a defal suñu politiciens fan la dëkk du foofu am nañu ay politiciens yu bari. politiciens yi soxor mais euh, ah. léegi politiciens yi soxor nañ parce que Tunkara. yow da ngay jàng ci nga jàng ci sa dëkk. nga dem ba am benn niveau bi doo ñëwaat kañ ngay ñëw élection jot na. doo jàppale kenn après ça nit ki bu ñëwee sa kër Dakar da nga koy commencé xam di buntu xatal ba mu ñibbi. keroog de gis naa benn vidéo boo xam ne. waaw ay euh, politiciens. waaw Inde. waaw bi ñu leen fale ñu amoon ñu diggee woon. waaw ñu dem. waaw do mëtewluñ ko. élection jotaat. ñu ñëwaat fa. pour nit ñi voté leen. waaye duma yi leen duma. très bien dootuñu ko fàtte. très bien dootuñu ko dolli de. c'est-à-dire que loolu mooy sensibilisation. sensibilisation mooy ñu xam ne ñun ci réew mi la ñu bokk. bon parce euh, que euh, nga may ma rek surface yi am Fuuta ndox bi suñ ko utiliser ak surface bi ñu changé culture def foofu ay arbre fruitier. allez commencé leen ko nag. ñu ngi ko ñu ngi ci parce que ñun ñooy jël suñu xaalis def ko. waaw commencé leen ñun ñu def ko. non jam sow waaw wax ji moom. baax na neex na. mais ñun xam nga Sénégal. waaw dañoo tuul si wax. wax na wax ñu wax. ay ay tonneau wax ba ñu tourmenté mandi. soxlaatuñu wax. jëf lañ bëgg yow boo ñëwee toog fii jam sow da waroon ñëw ne ma. Mhm. projet nangam ñun commencé nañ ko résultat yaa ngi nii. ñun embauché nañ nangam ñun produire nañ sangam. mais pas ñëw dañu bëgg def dañu bëgg def. Euh, non moo wax la rek dañ ko war a dépassé. lépp am na fu muy commencé. waaw mais commencement tamit. mooy jëf pas wax man euh, man ma ne la. ci sama formation yaa def comme yi wax non ci sama formation yi laa jëlee xel boobu. ma ne la wax dara ma ne la jam mhm. télé ku fa dem. Mhm. du wax rek moo la war a yóbbu. Mhm. danga war a ñëw indi. lu lu concret lu réel looy jox téléspectateur parce que téléspectateur non lu concret laa lay wax dama lay nommer nommément ay groupement ay groupement de jeunes ñu ngi exister pour vacances bu jotee tak ñu def plan d'action léegi loolu. vacances yi ngeen nar a commencé plan d'action très bien. bon euh, plan d'action boobu ñu ngi leen xaar léegi bu vacances yi jeexee. waaw seen plan d'action boobu bu sottee après na nga ñëwaat fii. wax ñu yan résultat nga incha allah bu sottee Babacar Gueye sunu euh, moom sunu gan la daa xaw tardé. Mhm. Euh, moom mooy président collectif des agents de sécurité et de sûreté si port bu Ndakaaru bii nga xam ne. yéen Babacar ñu ngi lay nuyu la ziar. ñu ngi lay fay. Babacar yow agent ngeen woon foofu ci port Ndakaar dañ leen dàq. waaw euh, agent la ñëwoon ci poru Ndakaaru euh, bon ñu créé collectif bi. ñaari ngeen am na plus de sept cent et quelques personnes. sept cent yëpp lañ daax. non pas sept cent sept cent dañ ci jël ci six personnes ñu def leen demande licenciement abusif comprendre nga. ni ni dem si man ci laa bokk. parce que dañ leen président bi donc moo créé collectif bi collectif bi ci dëgg lay dox ak lu njub. moo tax ñu jéem a ñu galgal noonu pour jéem a. dàq kan moo leen dàq euh, directeur bu bees bi. du directeur bu bees bi espèce yu sécurité espèce sécurité moom société intérim la. boo xamante ne nii port moo ko jël jëloon. jox leen dàqee yan motif lañ leen la ñu justifié dàq bi. waaw non nee na ñun bon waruñu ñëw foofu seen direction taxaw di fayeku waruñu perturb ñun dañu ñëw perturbé foofu te loolu lépp dara amu si ay ay sos la ay loo xam ne amul. Ah, mais dem ngeen si direction bi laaj seen fay wala. dem nañ fa ay au-delà ñu dem fa. pendant plus de plus de euh, euh, plus de ay dix personnes ay ay cinquante personnes ñooy taxaw di revendiquer seen salaire bu ñëwee man en tant que président collectif. dama mhm. Babacar dañu bëgg sunu salaire ah, au delà de de dix. donc loolu code du travail may na ko pour mu dem laaj salaire am bu ñu dem ñu ne noonu bu leen rassembler fii donc waa Admaris cité boobu ñu nekk Admaris ñu may dëgg waa cité Admaris ñu ngi may dëgg euh, gars yi di créer foofu ay perturbation foofu bari ay nit mu bari xam nga foofu cité résidentielle la ku ci nekk naan gars yi lu ñu def fii te suñu salaire la ñuy laaj et li ma gën a metti société boobu société euh, étranger la. ay étranger maanaam ay ay ay ay ay ay ay Côte d'Ivoire lañ nekkoon jubal jubuñu ñu dàq leen ñu ñëw Sénégal mu ñëwee directeur bi fi nekkoon Cheikh Kanté jox leen société bi jubu ñu tey jubuñu ëllëg. waaw kon wax jubuñu yow tam nag. non jubuñu parce que li tax si mu ngi nii preuve yaa ngi nii IPRES. IPRES mu ngi nii ma sama allocation carte d'affiliation mu ngi nii versé ñu IPRES versé ñu familiale. ñun bu ñu feebaree du ñu faju waaw est-ce que loolu rek mooy jubati bon léegi euh, xam nga ah. tamit euh, yow dañ laa dàq mm-hmm. te ku gémmañam di nàcc léeg du wax jàmm mm-hmm. donc il faut nga dal Babacar parce que ñi ngay waxal newuñu fi d'accord léegi il faut ñu ñu dem ak euh, xel ba ñu dem ak xol ok yow ñaata ñaata ban diir nga fa liggéey man def naa fa plus de six ans juróom benni at six ans yow lan nga fa woon agent de sécurité man agent de sûreté laa woon. maa ngi ci biir port bi installation yi. léegi yow agent de sûreté ñaata lañ la doon fay. bo ñu ngi doon fay euh, maanaam euh, cent cinquante mille la ñu doon fay du ma ko nëbb cent cinquante mille la ñu doon fay balaa ñu ciy jot. balaa ñu ciy jot dañuy daw a daw bay bëgg dee. bo léegi. waaw ah. nga ni dañ leen def licenciement abusif. abusif léegi est-ce que dem ngeen inspection du travail ngeen yóbbu ko foofu. Euh, ñun defoon nañ demoon nañ ci kii bi. ci inspecteur bi expliqué nañu carrément lii nit kenn du ko dàqee nii nit boo koy dàq sax nga koy jox demande d'explication après nga joxaat ko avertissement après sax nga jox ko mise en demeure demande d'explication doog a ñëw ñun ñun xam nañ ñu mu demee. voilà d'accord léegi loolu yëpp am directement nga dàq ay nit noonu sans droit ay père de famille pendant plus de sept mois ñu ngi nii xamuñu fi ñu teg suñu tànk amuñu luy dund suñu njaboot c'est dur dafa metti am nga soxna. am na soxna ay doom. Ah, léegi soxna si demul. soxna si. mbaa demul demul ah fay non du dem parce que kooku gor la dafa dama ko ji gor ji ko ji ko ji ko loo xamante lu ma mas am dama ko bokk ak moom ah léegi itam boo amul dara tamit ah, mais ak soxna ma ak soxna am na soxna soo xam ne baax madame Ndiaye madame madame Guèye maa ngi lay félicité si sa muy lu tax nga juum ni ah da ngaa saali de. non saalituma sax mais <laughs> dama xam ne euh, léegi yow. moom euh, Ndiaye moom Ndiaye la sant. si Ndiaye la sant ok léegi euh, soxna si di ko ziar moom jàmbaar la. voilà na jàpp te a bàyyi. voilà léegi ñu ngi leen doon fay cent cinquante mille léegi. est-ce que yóbbu ngeen ko fa mbaax ne doone benn. dem nañu tribunal. Mhm. dem nañu fële euh, inspection de travail. gis nañu inspecteur bi wax nañu lu leer bind leen seen euh, seen plainte ngeen déposé. def ngeen ko def nañ ko déposé nañu fu mu toll nii ut nañ suñu avocat. yéen xaar. ñu ngi xaar avocat bi fay ngeen ko. bi jox nañ ko li war a jox lépp. ñaata ngeen ko jox si ko fayuñu ko parce que dañ ko wax suñu cas xolom tooy quoi. mu nekk mu nekk koo xamante ne nii. wóorul de avocat yi da ngeen ki ma ki ma xam ni. fayuñu ko sax doon man xaw ma turam ah parce que gars yi ñoo ànd ak moom. Ah, ah. bon ñoo ànd ak gars yi. yaay président collectif am te xamul bi laa fàtte. tur bi laa fàtte. xam nga fii boo négocié di wax ay tur ak yooyu avocat boo xamante ne nii assermenté boo xamante ne xam na lu muy liggéey. xam na lu muy def léegi yow euh, yóbbu ngeen ko fi yoon doonee benn. waaye yéen kay kon da ngeen waroon toog rek xaar soxla wu ngeen di ñëw. télé di wax mais nag ñu toogee xaar kii appel appel appel appel appel fa la jógee. da ngeen gagné ñu def appel. dañuy gagné non ñun dañuy gagné ñu dem ñu def appel. kon àtte nañ ko ba noppi. non maanaam saa saa saa projet bi ñëwee dañuy woo nañu ne donc ñoom renvoyé nañ ko. waaw renvoi la loolu. bu dul jeex ñu ngi bëgg dee du sonn. ñaata yoon lañ ko renvoyé gum. bon envoyé nañ ko plus de presque quatre fois. quatre fois ñu bon xam nga tamit. quatre fois justice nu muy doxee. dafa war a dafa war gaaw xam la moo tax Sénégal dafa nekk pays boo xamante ne nii pays de droit la Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye laa interpellé le def lu leen neex di jël ay zone Sénégal di leen sacrifier ñun ay jeunes lañ président Macky Sall gars yi tooñ sax naan dafa jël toute la zone du Sénégal def leen ay gardien président Macky Sall war a taxaw ci loolu après si lañ créé un benn Sénégal man maay man maay man maay coordonnateur bi loo xam ne c'est national. ñaata ngeen bokkul ak port. yooyu dem na ay plus de 4000 ay 4000 éléments. Ziguinchor Tamba Cap Skirring fépp ci ci. def ngeen assemblée générale def nañ assemblée générale boobu il suñu bureau lépp man maay je suis le coordonnateur. am ngeen ay statuts am nañ yu leer nañ. donc sama numéro. mu ngi 77 162 60 80. pour que ku bëgg intéressé dugg ci euh, union boobu nga ñëw intégré ci membre yi. incha allah euh, léegi yow xam nga xam nga bugoo retraité nekk agent de sécurité. agent de sécurité moom da ngay gis sax des fois ñu xeeb ko au Sénégal te dafa nekk métier bu noble yow boo demee dans les banques agent de sécurité ñoo fa nekk boo demee ci biir biir biir euh, biir euh, résidence yi agent de sécurité yi ñoo fi nekk nga dem ci biir port bi xam ne c'est le poumon de l'économie du Sénégal gars yi bëgg ko négliger gars yi bëgg négliger gars yi bëgg négliger euh, secteur bi. mais c'est pas normal. ah bon léegi président ñu ngi lay ñaan nga jël nga jël convention professionnelle nga jox ko agent de sécurité ñu noppal ak benn yoon bu fekkee da bëgg deuxième mandat parce que un pays mënul émerger sans la sécurité monsieur le président la république. Ah, loolu dëgg la. je pèse bien mes le président il me connaît très bien. parce que yàgg naa fay ci moom waaw. fu mu man maa njëkk a taf photo Macky Sall à Tëngéej. billaay walaay talaay ba osé na naka naka ne la boobu maa ngi ànd mu ne ma Amine amin waaye kii kan la ma ne ko man la Babacar Gueye tëkk tëngëj tëkk cëw la. boobu ah bi mu faaloo gis ngeen. bu ñu faaloo ba léegi man gaa yi man damay doo comprendre. Eh. doo comprendre. Eh. benn instant dañuy dañuy fàtte démb. gorom boobu laay waxal sax day fàtte dëmb Omer Seck Omer Seck day fàtte ndax lan parce que man dama faay dañu faytoon mu ànd ak moom di laaj bi Sénégal. après yàlla boole ñoo koo xamante ne nii sax moo gën Omer Seck. muy kan may sa Maïssa koo xam ne c'est un gars boo xamante ne dafa jàpp pour la jeunesse sénégalaise di xeex pour Sénégal jëm kanam di xeex la Doudou Maïssa ñëpp a xam hmm. di xeex pour Sénégal jëm kanam di xeex pour président am deuxième mandat Doudou Maïssa Wade département Rufisque hmm. il est le meilleur sans Doudou Maïssa Wade président du am dara a niveau du département Rufisque Omer Seck xam na boppam muy lan non xam na boppam loo fa laa a yem xam na boppam parce que bu liggéeyoon du dem ko contre loolu il faut ma contre ko koo xam bu dara dul dara mu naan booy dina baax booy dina baax booy dina baax ba affaire yi baax nga fàtte lépp dem toog sa man xam naa ñeme naa wax Omer Seck na bu baax. mais est-ce que dem nga wax ak moom. dem naa wax ak moom ay nitam ñu ne non booy dañu insolent dañu nangam sangam dañu nii dañu naa booy dañu moytu leen nangam mais ki la fal kooku noo ko moytoo ki la fal boo ko moytoo jour boobu ñëw moo lay jour ji moo lay daaneel. bon léegi sa message. lan la Bakar Gueye. waa sama message daal mooy ñu gën a respecter agent de sécurité au niveau de Sénégal jox ko cër parce que ay nit ñu am nit ñu ñu am fulla ñu am personnalité lañ. yéen kan moo ah, ñun def nañ formation fii ci port bi avec les maîtres port commandant du port. ah avec de de des capitaines de la gendarmerie. ah formé à cette formation pendant plus de trois trois trois deux mois deux mois et demi ah. je je en na daal. yu metti fii ci port bi. boobu Cheikh Kanté moo fi nekk en 2015. bon léegi yow yow yow euh, li nga fa def 6 ans yëpp benn salaire bi rek nga mën 150. 6 ans yëpp benn salaire bi. xool sa salaire balaa nga siy jot xoolal da ngay sa kër. pour nga mën a nekk à jour da nga tout un problème da nga am problème cent cinquante mille soxna si ay jasner ay. ay ay ñun suñu soxna yi ñun loolu lañ jox ñu jël ñun ñu ñun suñu soxna yi dañu luñu ñu pour dara quoi. ndeysaan ndeysaan dañu jàppee c'est que dañu jàppee ngir man maa ngi leen di ñaanal quoi incha allah taala parce que ay jeunes. ndeysaan yaa ngi ko sa dafa metti dafa metti quoi ñu dàqañu ah, nii comme ça non du ma jooy man gaynde la man gars yi xam nañ ma autorité étatique yi gouvernement xam nañ ma bu baax hmm. rifis kenn ñeemee foon dugg en 2012 te jaaroo ci Babacar Gueye. waaw léegi euh, lan mooy sa message Diam waxtu bi jàpp nañu. Euh, bon di di la remercier d' abord. on est ensemble tamit euh, di di di bëgg a convoquer waa Fouta rek. ci kii bi ci vacance bi planning boobu bi ñu nar def ay formation de sensibilisation. ci seen dundin pour mu mun a changer. Hmm. maa ngi gërëm ñëpp nag euh, di leen sant. formation yi fan lay kañ lay commencer. fan lañ euh, voilà formation bi ñu ngi koy commencer le 15 euh, le 15 août. fan le 15 août à mairie. mairie seen dëkk mairie waaw sama dëkk. mairie laa commune ba foofu waaw sama commune. fan la si fan si lañ leen euh, euh, kii bi euh, bon mun naa ko def suñu suñu kër wala quelque part mais du. amagu leen lieu daal bu ko du lieu bi nga xam ne lieu. administratif mun na nekk école sax. bien bon léegi Jam Sow. waaw ñu ngi lay xaar fii. waaw bu vacances yi jeexee. bu ñëwaat wax ñu. yan résultat ngeen am ci wàllum production ak wàllum sensibilisation si fuutànke yi ñu yeewu politiciens yi bañet leen nax très bien dinaa ci kontaan Bakar yow sa message lu mu doon waa soo message daal mooy ñu gën a respecter agent de sécurité yu Sénégal parce que un agent de sécurité boo ko yabee rek yaa ngi yablu sa bopp parce que koo xamante ne balaa ngay mën a liggéey balaa nga am jàmm ci moom ngay jaar ah, donc kooku da nga war a respecter un pa ne peut la sécurité incha allah taala mu dëgg loolu mu xam ne Babacar Gueye ñoom taxaw nañu ñoom tey pour un second pour mu am un second mandat si mu taxaw ci jafe suñu convention professionnelle. yaa ngi koy yaa ngi koy euh, menacé nag. non menacé wu ma ko dama xam ne président président suñu waay la président suñu waay la mais cest à am na loo xamante nii bu seetaanee ci port bi rek port bi day suux parce que su port bëgguñu port bi suux dañ bëgg port bi dem ci kanam. délégué yi nekk ci port bi samay gars la ñoo bokk ñu ma ngi leen nuyu au passage ñoom daaf ay ñoomin euh, nowel Noël sama gars la il euh, moom gars yi bi la sama gars yi la donc am na ñoo xamante ne dañu leen di ñaan pour que ñu ñëw jàpp soudé pour Sénégal jëm kanam macha allah agent de sécurité yi nag euh, espèce boobu nag il n'est pas légitime Sénégal espèce sécurité boobu nañ ko érim interdit au Sénégal parce que li ñuy def sénégalais yi c'est ñu ngi jox la ay doomu Sénégal ñu leen di exploiter comme ça di leen naxaral di leen méttital non mais ah, léegi nag xam nga boobu Sénégal ñu ngi seen oto seen oto sa war dafa dox non Aly Ngouille war na ci taxaw bul fàtte léegi ñun dañu hmm? bokk ci espace CEDEAO espace CEDEAO léegi IPRES sama IPRES xool IPRES mu ngi mu ngi nii preuve na man ami du président maa ngi nii samay carte mandataire mu ngi nii Euh. man dama yàgg ànd ak euh, président de la République je suis mandataire depuis 2009 man maa ngi koy xeexal. Hmm. di ko xeexal ci territoire Tëngéej. léegi da ngaa bëgg président ah. delloo la njukkal. oh non dañu bëgg président xam ne am na ay gaynde yoo xam ne war nañu ko mën a fal gars yi dañuy soob rek naan du am deuxième mandat. Hmm. bu bu favoriser gars yi ñu jàpp ñu yi ñu Sénégal jëm kanam ñu jàppale gars yi ñu am ñu am dara. bon euh, attends même même tuuti Tounkara du ma la tooñ du ma la ma la du ma la doguma la port bi gars yi ñu nekkee dara baaxu si gis nga yi fi ñuy nekk box yi box yi yëpp baaxul buy taw day seen day taw seen kaw gars yi amuñ tenue yu baax gars yi duñu lekk lekk ñu naanuñu te et puis autorité port yi ñuy fekk si. Hmm. am na ñoo xam ne yaataluñu dañu siis. dañ naan gars yi agent yi nañ génn bi dañu siis parce que seen jabar seen doom képp ku bokkul foofu amoon droit dugg ci biir port bi monsieur le directeur général laay wax Aboubacar Sadi Bey mu xam ne le port le port c'est de tous les sénégalais mu respecté ñëpp jàppale ñëpp parce que ñun ay ndawam lañ si ginnaawam di ko jàppale Aboubacar Sadibé gars yi dañ koy xoxatal port bi dara amul benn problème ba ànd ak a sécurité yi am jàmm. Babacar Gueye euh, delloo njukkal soxnaam. parce que moom juróom-ñaari weer a ngi nii amul salaire euh, mais looy dundee foo jëlee looy dundee. mais yàlla. gis nga man ba may xëy suba teel dama xam sax affaire fi mu jógee barki Seydina Mohamed taalibe Cheikh la taalibe Sëriñ Babacar Si la man Babacar ma tuddee aywa euh, donc dama xëy dama xam sax affaire yu jógee yàlla xam na ko billaay wallaay taala ku ku wàkkilu si yàlla yàlla doy la euh, mais soxnaam dañ koy delloo njukkal parce que nekk sa borom kër ñu daax ko liggéey am na soxna yu bari yoo xam ne ñoom duñ toog foofu di la xaar dañuy fay dañuy dem seen yoon ne ñoom lii muñu ko muñ euh, loolu moom gis nañ ko fii mais moom soxnaam ma madame Guèye ak euh, mbooleem soxna yi nekk situation bi yëpp. di leen delloo njukkal di leen ñaanal suñu borom. ak sama yaay euh, tamit ak soxna su mère euh, mère Ndeye Kane. aywa de moom ma yokk fit. soxna su mag si moom di ko ziar. di leen ñaanal ñoom ñëpp jàmm ak xéewal ndimbal ak yërmande. ay techniciens tey ñoom ñëpp autour de réalisation Roxé Daba Mbodj ñoom ñëpp di leen ziar sunu ñawkat di Amara bu ji jàkk fii ci Waagu Ñaay moom tamit delloo ko njukkal ak sunu mbooleemu. Euh, téléspectateurs yi nekk si àdduna bi yëpp ñooñu ñëpp dañ leen di ñaanal suñu borom mu defal leen jàmm ak xéewal ndimbal ak yërmande ba altine bu soobee yàlla wasalaam.